ahlan bikum mbooloo mu bari bay tuuru fa ñoo dajaloo woon ca ndakaaru njaay ngir sàkku ci njiit réew mi Macky Sall mu jàpp bésu wote yi yoor yoor yéen kaay ne ay kuréel yu bari rassemblement FDD ngir xamal fippu ci kaw njiit réew Macky Sall balaa la deux fa war a jàpp bésu wote yi source a yéen kaay ne sénégalais yi fa ñoo mer ba futtu moo tax fa ñëw fippu mbooloo mu bari bay tuuru foo ko natt weesu na ko ndëpp lañ organisé ngir sàkku ci njiit mi mu def li ko conseil sant te mooy mu organiser ay élection balaa la su bañ a organiser xaar ba la deux su boobaa njiit réew mi fay dugal réewum Sénégal ci guuta goo xam ne kenn du xam ñu koy lijjante vox populi mais sénégalais kay fa ñoo xam ñu leen naqari moo tax fipp mbooloo mu bari waaye nag seen daje boobu ñu amaloon fa mujj yàqu ndax wujje xeex diggante farandoori Khalifa Sall yi ak farandoori Ousmane Sonko ya ba sax takk der yi fa ñoo mujj ñëw tasaara leen gannaaw buñ leen jóoree ay grenade lacrymogène wal fajir gat sa gat sa moo xam léegi diggante ñooñu Sonko ak ñooñu Khalifa Sall yi guerre bu métti lañ nekk waa Pastef yi ak taxaw Sénégal yor yor yéene kaay ne lu ji njaaga kenn ku may Barthélemy Diaz dafa jël ay nitam ñu ñëw ca ndaje ma saboté ko yàq ko info ay xeer fañ ko doon sànniwante waa FDD yi nee na ñoom am na ñoo xam ne gis nañ leen xàmmee nañ leen fa ñoo yoroon ay jaas yi ak ay pompe à gaz jaxasoog mbooloo mi infiltré leen ba seen ndaje ma moo tax waa FDD nee nañ fa ñuy porter plainte ñooñu turbine yéene kaay ne waa Pastef yi nee nañu ci boppam ay nervi la fay xaalis ñu ñëw seen ndaje ma ngir saboté ko kon du kenn Barthélemy Dias la ñoom yàgg nañu xamal ndaje te coow du xam El Malick Ndiaye ba mu jëlee kàddu fa ñaawlu ay opposant yoo xam ne ci ku jege lañ nekk ba pare di tuumal waa waa Pastef yi ci agressé bi ñu def Maïmouna Ndour te ñoom amu ci benn firnde loolu fa ñaaw ndaw taxaw Sénégal yi nag muy farandoor Khalifa Sall yi fa ñoo weddi ba tëdd ca naaj wa seetal Barthélemy Diaz ca la am keroog Mamadou Mbodj bu F24 ne faa bëgg ngeen xam ne ñun nekkuñ ay adversaire ñoo far benn adversaire lañ am war koo xeex mu organiser élection yi te mooy njiitëram Macky Sall kon ñu ni neen suñ biir waru ñoo xeex ak a jàppante tribune yéen kaay mel ni ku naan leen yéen kujjey kay nekk leen foofu rek di xeex di rayante seen biir au lieu ngeen nekk benn si jamono ji nga xeer bi dox diggante farandooru Sonko yi ak Khalifa Sall yi boo moytuut fa nar a tas ku jege de opposition bi <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne ay bés bii tàmbali tey ci la lépp di leeree ci ëllëgu Sénégal élection yi fañ koy xamal wala duñ ko xamal su njiitira Macky Sall bañee organiser élection yi ba le 2 avril su fekkee fay dem comme ni mu ko waxee kan moo ko nar a remplacer su boobaa élection yi naka lañ koy organiser lii yëpp ci semaine bii lay leer a kaay moo ñu ko xamal ah, yaw ci altine ji ci la njiitira Macky Sall di dalal ñu amaloon dialogue ba ko su noppee moom jiitëram Macky Sall fa koy jébbal waa conseil constitutionnel na leen waa lu ngeen wax ci lii gars yi dana la deux juin ñu organiser élection yi ndax d'accord ngeen wala d'accordu leen li ñuy wax nag vacance du pouvoir fi mu moom la waxtaane Sénégal boo muytu fa lañ nar jëm mooy président Macky Sall bañ a organiser élection le 2 mu dem ñu lijjanti ku ko remplacer le quotidien yéen kaay ne biir APR am na fa kilifa yoo xam Ah. nee na le 25 février bi mu passé ba léegi amul benn candidat boo xam ne valable nga fi mu toll nii fa caa yokk ca tribune yéen kaay moom Souleymane Ndiaye fa wax ne Amadou Ba nekkatut candidat Benno Bokk Yaakaar pour muy leer te processus électoral bi fañ koy tàmbaliwaat à zéro 19 yépp kenn walaabalut fi mu nii Ismaïla Madior Fall jëwrin moom fa wax ne Sénégal ba léegi xam na démocratie bu mag boo xam ne royuwaay la ci Afrique man ko waxee ci regard yéen kaay 24 heures yéen kaay ne man a a jaxasoo dal Sénégal ci Macky Sall bu leen laajee seen xalaat ci li dialogue bi wax si jamono jooju candidat yi juróom benn déposé nañ recours ca conseil mu war a jàppal date léegi ban la ciy def Mamadou Lamine Diallo ne ak bu mu ci mën a def maanaam dogal bu mu mën a jël moom conseil constitutionnel ñun ñëpp fañ ci ànd fañ ciy d'accord far force la nag maanaam conseil constitutionnel bu jàppee datu élection yi ñëpp ciy ànd lu mu wax daal fañ ci war a ànd la mu wax nag moom Mame situation yooyu kenn musul koo yaakaar na dana am Sénégal moo tax lijjanti ko fa a jafe bi ko wàll observateur laajee kañ nga mujj déggante njiitëra Macky Sall mun a yàggut di matu sax ñetti semaine waxtaan nañ ma moom vox populi ne nappaate xuppaate gi njiitëra Macky Sall di def professeur Abdoulaye Dièye moom fa cee jaaxle Mamadou Ndoye ba tey ci vox populi moom fa wax ne d'accordu ci amnistie bi baxal ñi nga xam ne fa ñi doon assemblée nationale tey lañ leen convoqué ci altine ji ngir ñu càmbar ko suñ paree taf-taf ñu oo député yi wote ko ba tey léegi si ko a kaay ne député yooyu war a wote sax loi amnistie boobu njiitëra Macky bëgg ñu wote ajjuma bii weesu njiitëra Macky Sall fa xoo mbooleem yi benn bokk yaakaar yi dalal leen ca palais ba waxtaan ak ñoom na leen faay tàggatoo ak yéen ndax le 2 avril bu jotee faay dem dootuma nekk président bu Sénégal kon fa ñuy tàggatoo leena seen tàggu a xew daal moom leena fi àndoon ak Idrissa Seck ca watay xatam ya bàyyi na Idrissa <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Maymuna Nduur Fay journaliste ginnaaw buñ ko agressé fi mu ni tane na bu baax a baax ay jege ñaaleem nee nañ docteur yi la ñu bàyyi ko mu génn waaye fi ni moom tane na ma ca hôpital bu wakkaam exclusif yéen kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom vox populi mooy Pape Abdoulaye Touré ci farandoori Ousmane Sonko la bokk fañ ko jàppoon bàyyi nañ ko mu génn léegi na gendarme le point yéene kaay ne jëwriñ jii di Pape Malick Ndour fa dimbale askanu Bambey ak Jurbel utal xëy recrutement yu bari ci xëyu ndaw ñi libération moom fañoo xamal ne Amadou amaar ñu gënoon koo xam ci béy di xam nga fañ koo fekkoon mu faatu ñàkk bakkanam ci ab immeuble yéene kaay bi nee na waaye yëf yi ndeke lu doy waar la nag nam faatoog la ca amak ak mbiru dorog yaag lépp yéene bi fa ko leeral la mu leeral moom le quotidien yéene kaay mooy benn xale ndeysaan fa faatu ñàkk bakkanam ci ak lakk néeg baa tàkk ca kaw mu faatu ndeysaan yëf yaa nga amee ca Medina Yoro Fula